dafa am ñu tiit lool li leen tiitloo nag mooy dem nañu ba benn di sakkal yàlla koo xam ne moo ko bind di jël téere bi nga xam ne li gën a boole jullit yépp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 day dem ba ay bëtam muuru ci xàmmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ci